Euh, Cheikh Antoine comme ni leen ko annoncé ci ci entrée bi gis ngeen fii Kër Massar côté Jaxaay ngeen gis ni dañuy waxtaan lu am solo muy tànk dal fi nag coach Amady Thiam coach ñu lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyu suñu Cheikh yaa ngi nga àndal di ziar lay Cheikh Antoine di leen bëggee te di leen jox seen wàccuwaay coach gis nañu liggéey tànk dafa métti mais lan lan mooy problème bi ba gaa yi ñemee ñu ko quoi Cheikh <laughs> Ahma chaque fois mooy posé débat bi ci ci groupe coach yi c'est que tànk dafa nekk affaire bu sensible bu graaw kenn kenn du ko ñëme sax tudd waxuma laa ak laal. te comme ni mu la ko waxee sànq dinaa naa la tabax te amul fondement kenn ku mës a def muy sunu borom. keneen ku ko def ci kaw suuf force il faut nga teg fondement te fondement nit moom mooy tànk. mais mais mais lan mooy problème bi dafa temps bi mu jël. pour liggéey ko mooy problème wala difficile li mu difficile moo tax. ok comme comme ni ma la ko waxee woon tànk da dafa bokk ci muscle long yi. Euh, liggéeyam développement am dafa dafa yàgg. dafa yàgg ba pare euh, du benn muscle kese. dafa regrouper ay ay groupe musculaire yu bëri. moom moo xam muscle postérieur bi extérieur bi muscle transversal bi ak muscle dorsaux bi mooy li ñuy wax le quadriceps moom moo tax mu naq di liggéey ko euh, gis gis ñu anatomiquement nit ñu bëri yemuñu dañuy gis ni dañuy gàtt teel am mole ñeneen dañuy sew njool ñaañoo tey bu ñëw ci salle lan mooy doon seen différence pour liggéey muscle bi tànk cuisse très bien chaque fois bu nit di ñëw di inscrire ñëw ne ma coach man nii laa bëgg toll li ma ko njëkk xamal mooy na loo xam ne c'est na ko xamante ni demul sàll demul fenn mais mais seen waa kër ñoom ñëpp a jàpp. musculation aussi tamit loolu da ciy joué à à pour cent. na ñoo xamante ni ñoom dañuy laal tuuti rek ñu développé. na ñoo xamante ni buñ doon liggéey 30 ans wala cinquante ans ñu mën a développé. parce que c'est génétique quoi. Okay. léegi ñooñu gis nañ ñu bari surtout ñu njool ñi boo leen xoolee ñu bari euh, lu jëm ci cuisse ak mollet moom zéro. mais bu ñu commencé entraîner loolu tey yow ban conseil nga leen di jox pour au moins ñu mën a am dara lu génn. non man li ma leen wax mbir bi coach am secret amu ci quoi. nga affaire bi liggéey la ak bëgg-bëgg ak gëm-gëm. gis nga ñetti condition yooyu bu réunir loo bëgg ci musculation dañ koy am. ñun ñi ñëpp on est parti de zéro. comprendre nga mais euh, il faut nga nekk ko ambitieux d'abord ne sama objectif lii la donc di leen wax ni. affaire bi amul xaddi du naan ay anabolisant wala yeneen ak yeneen affaire bi job la rek. liggéey kese la. mais est-ce que du temps bi bi jël ñu ñu gis ñu liggéey ba sonn amuñu dara mooy tax ñu ñu arrêté ko continuer liggéey kaw yi. dëgg la souvent sénégalais surtout moom moom dafa am habitude di gaaw a xaddi te musculation ku patient wul doo ci mës a am résultat loolu moom on a disconvient même pas euh, il faut patience il faut liggéey. ak beneen bi nga xamante ne dañ koy fàtte souvent mooy récupération beneen bi si topp mooy alimentation. ces ah quatre conditions yi bu réunir ma mën naa ne sax temps bi ngay def pour développer sax du yàgg. Ah mais mais mais pour liggéey tànk euh, chaque jour nga war a ñëw saal liggéey ko wala danga war a liggéey tey tëbal tëbal deux jours wala sa sa emploi temps ni mu war a def pour pour liggéey ko. d' abord euh, coach Ahmed il faut il faut nit ñi xam ni benn benn muscle kese. soo koy yàgg di liggéey xam naa coach yi may seetaan euh, dañ ma jël à témoin euh, muscle bi ñaare koy arrivé ñett sax day stagné walla catabolisme musculaire wala mu stressé. ok euh, ak muscle bu mu mënti doon moom moo xam tànk tey tànk la ñuy wax. tànk d'abord effort bu mu def day bari moom day dem marché. di dox di yéeg escalier mooy toute la journée day liggéey donc tànk maximum mën nga ko liggéey maximum deux fois dans la journée en euh, la semaine deux fois kese doy na mais mais xam nga bu ñu waxee sport et santé la ñuy wax mhm. euh, coach da ngay dégg ñu faral dégg ñu naan lu bari euh, liggéey tànk bu bari baaxul ci góor <laughs> un jour maa ngi dégg ci sama coach coach Ngom ak coach Manga ah, ñu ni ñu ni au contraire gis nga coach Ahma Sénégal bu ñu defoon ku nekk ñu bàyyi la ak sa métier rek dina développé kii def mécanique ñu ñu bàyyi ko mu def kii def fitness ñu bàyyi ko def fitness mais kii def musculation aussi tamit ñu bàyyi ko lu mu moom c'est démontré scientifiquement ñii liggéey tànk seen taux de testostérone day augmenté donc ku la gën a mën a liggéey tànk ngeen baal ma ci terme bi quoi mu ci ci ci kaw lal mu mu waaw mu mu la ëpp doole loolu mu c'est am nga yéen nga fi fitna de mu tax gars yi yeewu suba <laughs> toute la journée gis gis seen tànk yi dafay seen bopp. <laughs> du ñu wax aussi te wax ñu si actualité gis ngeen ko léegi saa de musculation yi ñëpp dañoo daw ko ñëpp nekk ay coach. Mhm. te si ñu bëri ñoo xam ne amuñu expérience bi jànguñu ko. Mhm. pour nekk coach d' abord fa war a jaar ba pare. ok euh, mais euh, gis nga coach am na dommage que Sénégal ñaari centre lañ fi am xaw ma benn INSEPS. bu formé ay coach bu weesoo loolu coach yi fi nekk ñëpp. saal ya leen formé. mais loolu aussi tamit euh, affaire bu ñuy magnifier la. parce que tey nit nekk na ci hôpital. deful médecine mais mais dem na ak expérience am bay dem bay commencé faj. donc euh, diplôme bi rek moom muy causer problème. Euh, métier bu ne ak lu mu mënti doon même journalisme bi ngeen def da nga war a def formation. soit nga dem ci école de formation yi wala nga dem ci ancien bi la formé. ok waaw du ñu wax aussi te waxuñu ci léegi Sénégal boo waxee ñu ne ñu nekk ci musculation kii salle yi di entraîné ay nervi lañu yéen nekk ci mbedd yi di dóore dégg nañ ko fii ci élection bu jotee gars yi ñoom la ñuy recruter. Mm-hmm. effet boobu lu leen di def. Euh, à chaque fois bu leen ko déggee. Euh, loolu bu ñu ko déggee ñun en tant que coach en tant que euh, loolu ñun dañ koy dañ koy déplorer gis nga coach nga un sportif. kenn du la def loo sale boulot. surtout man métier bi euh, en en dehors de musculation yow xam nga ci dara. bien sûr. am na kilifa bu mag bu may àndal ci Sénégal mais on est certifié on nous a très bien formé gis nga nervi yooyu noonu kenn amu ci carte professionnelle. soit ay ancien mbër yu échoué la. yu échoué ñu baal ma sa sa sama mbokku mbëri sama. ah non mais mais xarit lañ la vérité euh, ñeneen ñi ñen ñeneen village lañ jógee ñëw xamuñ dara mais mais boo seetee ñoom ñooy dee ci yooyu noonu. bien man man daal lan laay conseillé gars yi man du ma nangu doon nagu saraxu kenn sama sama métier la ci laay suturlu. donc kenn du ma ci fay du ma def le sale boulot je désolé. macha allah macha allah wax euh, wax ci am na solo trop. keroog da nga ma laal ci benn ci benn thème mooy bi ñuy wax léegi li ñuy wax mooy les gigolos. <laughs> tey koy taxé ci biir ci saal yi foo leen dégg ko maanaam xale góor dañuy entraîné mais entraîné pour pour jaay taar la entraîné ñu pour pour la santé aussi dañuy dugg ci saal bi rien yëkkati weñ duñ dem ci géej duñ dem fenn. ax ma Axma ju amoon loolu dinaa sawar wax ju Axma man néew ma la loolu sax. en dehors de affaire de gigolo bi sax dafa am leneen lu ciy laxasu mooy homosexualité bi euh, bëri na ñu baal ma gars yi ngeen baal ma ci ñu ma ko war a wax mais bëri na góor bu am muscle di di entraîner nga yaakaar góor la fekk moromu góoram lay gënal <laughs> yee moom mu bëri tey tey ñun ñu yàlla nattoo domaine musculation wala salle yi nii mhm. euh, ñaari ñaari tentation yooyu noonu moom ma ñuy arrivé soit ji soit jigéen ñi lay ñëw aborder defoo loo leen lu ñu bëgg ñu ñu caractériser de gigolo. ok ñel beneen partie bi mooy góor ñu raté si seen live dama ñu wër seen moroomu jigéen di ñëw seen moroomu góor di leen tëddee. mais mais est-ce que tey du ñu parce que ñu wax rek euh, euh, bukki bu yabee gaynde doxin ba est-ce pas la façon li gars yi def ci réseaux sociaux yi sol yenn accoutrement yi di entraîner wala génn parce que gis nañ ko fi ñu am na ñoom bu dem di entraîner da yaakaar ne dañuy dem di jaayu. surtout jigéen ñi ah. Euh, ñu jégal ma. yow dangay gis jigéen bu war a dem salle def xaw ma taille haute lañ koy wax. ba euh, baa taille haute boobu noonu. sol ko ba mu fees euh, forme bi euh, affaire bi di marqué carrément. sol ko ba mu mais mais góor aussi tamit qu'on se dise la vérité quoi. nit nit kese nga. góor góor kese la. tey su ma ñëwee ñu souvent ñun def naan dal coach Assane man du ma bàyyi ma fenn parfois nga def loo jigéen exercice abdo baa bi. xanaa jigéen ñi si bëgg dara ñoom ñooy jël seen kii seen euh, ci blouson yi takk ko ci intervalle euh, cuisse mais ñeneen ñi dañ danaan fàng ne dagg mais yow mi ñëw di compter yow yow après yow da ngay fàtte compter bi ah koy fàtte donc jigéen ñi aussi tamit ñun ñu dimbali quoi xam nga parce que gis naa fi man gis naa jigéen yu bëri dañuy bëgg a entraîner mais dañ leen sama jëkkër buggul ma dem saal parce que nee na lii moo fa am waaw euh, coach las Amath Lassicri souvent da koy wax. coach yi nañu xam lu ñu bëgg quoi sama sama gars yi gis gis métier ku nekk li ngay suturloo dafa war a barkeel ku nekk la ngay jox sa njaboot dafa dafa war a doon lu sell gis nga jabaru jàmbur bi ñëw ci salle pour am wér-gu-yaramam wala bind stress. wala pour perte kooku ngalawaay bàyyi ko fa te yëgal ni soo ko defee ëllëg. dañ ko def sa jabar bien sûr oui aussi simple aussi lii la ñu amoon lu ñu waxtaan ak euh, coach Amdi vraiment kàddu yi na trop coach Amdi dañu lay bàyyi rek nga nga nuyoo ci suñu seen internet yi aussi ak ñi nga war a remercier ñëpp. waaw di kontaan si si émission bi amat ah moom boobu léegi ñun ñoo koy bëgg def deux mois presque. mais tey la ko yàlla dogal. di di gërëm gars yi nga àndal. mais mënuma tëj aussi sans gërëm sunu sunu DG. muy muy grand Abdou di grand bu baax. di mais salle bi mu ak ak emplacement bi. très bi mi ngi tudd Night Fitness Club. nekk Kër Massar Jaxaay Unité 4. ok euh, bu loolu weesoo aussi tamit di gërëm kullu coach euh, su ma limee du ma juum mee dama dul matal. donc gars yi man maa ngi leen bëgg di gërëm aussi sama jàmbaar yi. ak sunu lion bii nii di Mia ak sunu luur yi. Euh, vraiment ay gars yu amul benn problème. Night Fitness Club moom franchement. Euh, on est une famille daal. waaw dëgg yàlla. di leen bëggee di ziar ñëpp. war na vraiment kontaan nañu trop di ko nuyu di nuyu tamit euh, Lamine Lamine Gueye defe naa gis nga <laughs> dafa daw ah, dafa daw di nuyu coach yëpp ah di di waajal aussi la la 14 avec coach Diaz. Diaz waay Diaz sama xarit loolu point yof am di am di waxtaan ak nit ñi quoi. loolu euh, loolu coach Axma loolu ci Diaz man mooy sawar di wax ci Diaz la. Diaz sa mon ami. te ku yàgg ci métier bi la. te tey jot na musculation sargal ko quoi. bien sûr euh, Diez tout fait pour la musculation. Euh, donc bésam boobu noonu di ci woo Camerounais yi Gambien.